rouge bi rek comme ça mooy baax baax bi quoi waaw baax naa parce que rek. ça va fële nga. ça va yéen. yaa ngi kuul. yaa ngi kuul. naan. sant. waaw bi man dégg naa wax ma sama sa falaa bi kooku sa falaa la. sama falaa la waaw. nga ne ko bleu. moom lu bleu bi fa la jëm. Hmm? fa jëm. dañuy dem resto. resto. waaw. yóbbaale ma yóbbaale ma. non moo dem. la ma dox. moo dem loolu pour ñii ñu la quoi. nit ñi ko ah, kon maanaam man bokkuma si niñ ñi. waaw loolu nga xam kay da nga ni ful nit ñi ful nit ñi man bokkuma si. boolewuma si da ngaa war a ful nit ñi ñëpp. maanaam boolewuma si. la ma xew. 31. wa kon. am na ni kon këlgale ne ma lomb ginnaaw ñu wàllee ay ginnaaw. Ah, benn ginnaaw bii bii ak naa ko fa kay. loolu la. xaw ma loolu war mu 31 la fête la. fête fête bi am chaque année nii fin d'année quoi. ah soo deewee beneen ñëw. yow yow yow bu fekkee da nga am gel. waaw dañ koy yóbbu kenn toog ngeen lekk. c'est vrai bu la nekkee nga yóbbu single. waaw à part. bu la ko sentir rek mën na nga yóbbu single. waaw su nga mënee amee jàmm moom rek. naa ko. mun nga faa indi fala ba mool mu jël ko di ko bokk ak man xam naa ko. papa boobu noonu dafa fonn xam naa ko bu baax. yaa sa papa de xam nga man xam naa ko. xam nga yow boo ko mën gël man yow fii ma moom moom mu doomi xalam lu yiw xamoo ko sax kooku xamoo ko doomi xalam bu mag. waaw xam doomi xalam bu ndaw am na bu mag am na waaye. ñoo yor naa léegi maanaam loolu bu la neexee nga ànd ak sa fala ndam. lesu lesu nga toog rek mu toog nga wax neex toog wax wax mu na leneen kay. dara yaa xool rek. ji. loolu li ñu naan neex man de. waaw wala. kon kay kon kay yow kay yaa ngi doon wax li li xew. parce que bu ñu ci dem ñu ngi naan sama papa ma naan bëri. daa am ay jàng. kon kon kon daa am dem ci jàng ah. wax dëgg yaay kay. mu naan kaa ah, war ci dem na ma am ay Fara Diop kooku daa mel ni fure ah kon is la deful ànd ak kii woon beneen beneen beneen ba waay. beneen soo ko yow yow yow yow doxoo naan di dégg yow xoolal mu ànd beneen Fara ñoom ñaar oui xoolal. bàyyi ma dem kër bàyyi ma dem kër nga xool baax na ah waaw. et Fara Fara. moom dëgg ndax tey la fekk doo gis kenn ci koñ bi. waaw tey la fekk kenn. maa war dem jàngee. waxal waxal na say waa ji. waajan. fekk ci moom koñ bi. ah kon xam naa day xaar Fala bi. waaw ah, jigéen de. ñaw est nga. ah na ah, nga yow di am. ah, ah waaw loolu mooy Fara bi. léegi bi ma ko laajee mu ne ma. waaw ma ne ko damaa la mu am ay ginaar. dëgg la dëgg la. waaw ma ne ko ñun Sénégal am na ginaar wante gisuma ko. non ma loolu du jàng. fel la. boo xam ne ni. wel bi bu deewee beneen mooy ñëw xam nga. weer bu dee waaw beneen mooy ñëw. weer bi deewagul li. waaw nga abat weer bi des na. waaw bi dee na dem jàngee bala may taal mu ne ma waa déglu Faba da ngay déglu gis nga golo bu na lay juutu rek faaw mu nekk fi ni i i ji mais déglu dama man golo la waa déglu rek déglu da nga déglu léegi bi ma ko laajee mu ne ma mu ne ma tey c'est le 31 décembre beneen wala ànd ak ku nekk eh. ak falaaw wax kenn xamu ko ba ma dem bala may taal dama ko war a toj ji jàngee barke sama sëli ma waaye boo passé village bi ma dugg sama yaay expliqué ko lépp. ah taxawal fii ma ma leen xaaral ma yor ba pare. dégg nga jërëjëf jàpp. waaw waaw waaye nag dégg nga fi may la waaye moo demee ma wax. dama la boole wax waaw léegi léegi la ma tax yow yow liggéey woo lii dem ba xëy sama yaay. soirée ba nu organisé woon ñun paa yi chaque boobu moo fay a yi naan leen eh. yee. bu jël waaw moo tax nga eh, ma ma dem yow Farba xoolal xoolal li nga sol bu ma laa da ngay dem ay soirée comme yow demoo bàyyi ma ma dem di di jàpp xale jigéen ñi di làmb seen kaani ah, dañaa làmb feet la di làmbante xew boo làmbantewul doo waaw wuy ma man soo demee man damay dem fan nga jëm fi ñoom Diallo eh. ñooy déglu ma xalaat ñoom Diallo Diallo baaxul bu fa dem Diallo Diallo déglu ma xalaat Diallo Diallo ah ak ak ak Cheikh Ndiaye. ba ma dem ak ak ki tamit. bëgg nañu ne soirée fa laa jëm. fa nga jëm yow benn dong la am nga. ba ma dëj benn dong la am nga. xaw ma da ngay tëj xaw ma fa fa yow faa yi ay ay papa faa yi nekk ci koñ bi njëkk dañoo gën a nekk dong la am dañuy toog fii di xool ay soirée bu ñu ngeen taat lool appel investir ngeen def ah. waaw waaw fa lay nga gars yi dama la fa dox benn moom. Ah. ah wax nga boo ma woowee rek jàmm nga may doyee waaw xale yi. daaw tojoon naa ko. waaw daaw xale yi dégg naa ñu lay biiwoo. naan biiwoo naan naan. baari baari baari ba nga duggee si biir la ooy ma. xam nga la. Ah. boo waxee dama dégg li ngay wax. lan laa wax si néeg yi. nga naan sama yaay. da da da maa doy sama doy ji. yow yow baba. Eh, bu ma fontoon ah. yow ku tabaay bu dem jaay nga ko da ngaa. yow yow yow yow bi ci bi ci jaay kuus bu ñu jaay nga nëbal ko. da ngay day rek sa tun gi xaw ma daa fële na li. xale laa daan kuus ak a rab. bu ma solo la. Ah. yow booy booy man jëloon nga ne ci jàngal nga rek. dama lay boole ak ay booy yow yow yow donc foo foo kontalee ruju bu baax rek ngay def foo kontalee ruju bu baax rek da nga da nga lax laxee lax dama yu baax laa yor.